te sakku ngërëm ci barke Seex Mustafa Mbàkke ak Baara ci kattanug Yàlla ak njool Màkka ak ña ko dar ci mbirum si di Lamin Baara mooy turandoo xayru xalqulaayi sayyiduna salaale yi la si abda sëriñ baara mooy turandoo xayru xalxulaay sayiduna sala alayhi la si abda sëriñ mbaara kàttan ko jox màkkaamati bañ a fab tabam bur yàlla dem baaras di soppi atte ya moom Siidi Lamin Baara moo sañ a fab tampamub bur dem baaras di soppi atte ya moom Siidi Lamin Baara jaasi dogal dafa kun la yàlla daas ba mu ñëw jox yonen ba mu jox Siidi Lamin Baara yonen ba dellu fa baat jaaseem ja daas ba mu ñëw jox say xibam ba mu jox si lamin baara yonen ba dellu fa baat jaaseem ja daas ba mu ñëw jox say xibam mu jox si lamin baara kiwum na làmb ja ndax bàkka moom man caaras waa jiinal sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñépp a nga naan ji làmb su fi fel sampub sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñépp a nga naan ji làmb su fi fel sampub sëriñ baara waa mulku ak malakoot ak kursiyoog jabaroot seen atte benn la ngi siidi lamin baara fadat wayaayiluhum wadat fayaayiluhum wasan wayaayiluhum xam nan sëriñ baara wasas mayaayiluhum wasan njayaayiluhum ki leen di jox ndigalay siidi lamin baara yooye malaayika seenub lim juróom ñett lañ yu bokku taawu aras wóor na sëriñ baara yooye malaayika malaayika seenub lim juróom ñett lañ yu bokku taawu aras wóor na sëriñ baara boo bëggatee buur itam na fekk buur bëgg la buur yàlla mi maa bëggal boppam sëriñ baara boo bëggatee buur itam na fekk buur bëgg la buur yàlla mi moo bëggal boppam sëriñ baara buuru jullit la ko def bu yaate tey ba ëllëg duniyaa raaluhu ñeen na sëriñ baara buuru jullit la ko def bu yaate tey ba ëllëg dunyaa loo ñeel na sëriñ baara soppe boroomam la dib xejjam bu jëm abadan yal na nu bur def xejjub sëriñ baara ki di sibtu maaram waa mbàkke gépp ko xam te waa bu soobee dañuy war maal sëriñ baara ñëw leen sibtu soxna jaar bu so ku murit yaa ngi sëriñ baara baatu Seex Abdulaa waa daaru alima xam kan mooy sëriñ baara jar ba moore tondoon gaganti gaaya gagoon ca lawhu mahfuus man yem naa sëriñ baara fa kun fa yàkkoon la dambe xam-xamu bi kamam booleeg sirub alxuraan maa gëm sëriñ baara fa kun fa yàkkoon la dambe xam-xamu bi kamam booleeg sirub alxuraan maa gëm sëriñ baara taalif na téere yu rëy yuy salmasi taxamul kaa nga kifoore du xam bindum sëriñ baara taalif na teeru yuy salmasi ta xamul kifoore du xam bindum sëriñ baara siru baroon bayaan ak teere taxaxal ca alimul xaybulal tabe baara sëriñ ku na cosaan bay weddi lii ma la jàngal mu nawir bul yaanum sëriñ baara sëriñ bu naw sa cosaan bay weddi lii ma la wax jàngal mu nawir bul yaanum sëriñ baara sirub aroot ak bayaan ak téere yi taxa xam caalimul xëy bu lan tëbbe sëriñ baara ca géeji xëy la naan ba di ñëw di bëngeen nekkuy lu mat dandu leen bal sëriñ baara ca géeji xaybu la naan ba man ni ñëw di ba ngeen nekkuy lu mat dandu leen bal sëriñ baara koo xam ni kii bu mu saa tàngoor ba geesu wetam lum xol mu takk moo di sëriñ baara béjén bu rëy ba fi daane nooru diina ya woon yàlla ko sot ba mu ñëw mooy sëriñ baara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 noo man ci tollu mato santub sëriñ baara koo xam ni kii manu naan géeji jën yi ni mes toppal ci Seex Ibra santub sëriñ baara ñun suñu cër mooy seet li nga xam ne moom la sëñ Tuubaa santaane ñu topp ci man mënuma concevoir ku sant Mbàkke ñu naan la sëriñ gaa yi raam di ñëw di di la jox seen addiya ba pare nga war a dugg ci langue politique soo duggee rek dangay far du suñu cër ni euh, euh, ma bëgg wax rek mooy sëñ Tuubaa euh, mën ko delloo njukkal rek ba mu mat wande li yées rek mooy tegu ci yoon mooy taalibe yi di ñu gis naan àccen donc yàlla nañu yàlla dimbali daal yàlla nañu tegu ci yoon gën a góorgóorlu rek àdduna gisuma fi lu fi jar yenn yi sëñ Touba defal nañu lépp te su doon su fekkoon ni damay dugg ci langue politique am na am na ay éléments am na ay outils am na ay arguments ndax def naa droit def naa science politique ba pare haut fonctionnaire la woon quarante ans dans l' administration secteur bu ne dugg naa fa donc mënoon naa fa dem dugg ci lu ne te man manipuler ma sax daf dul yomb parce que euh, ñi nga xam ñooy ñëw di manipuler ku ci nekk soo yëkkatee sa tànk xam naa fu jëm donc li tax nit ñuy daw mooy ruusit yi ñu waddal ci gannaaw te man de sama wàll bopp laa wax daf ma tiitalul dafa maa jaaxul hmm. donc di soññ ñëpp rek dama yaakaar ne loolu mooy dëgg nag mën naa juum waaw ah, man de yi loolu laa gëm. Hmm. riir yooyu nag ak folklore yeeg yooyu tànk baa ngi ànd ak sama sogo kenn du ma ci gis. ngay sut kilifa tegati ci loolu rek dafa dafa dafa doy dafa doy ak cant dafa dafa doy ak cant te tam lii dong lañ fa am nag lii dong lañ fi desee waaw demante leen bi ñu dem loolu doo ngay neex mag ñi nag wax na ko sëñ eh, Modou Maxtaar waxoon li deseel sëñ Tuubaa mooy di di seetante ak di nem tem nem tem ndax kenn ku la neexoon toog fa teewul sëñ Tuubaa di la fa Euh, kon nag liñ amee sëñ bi daal waaw ah, loolu rek lañ ko loolu lañ ko mën a defal waaw. ak boole koog jub nag mm-hmm, mm-hmm. boole koog jub waaw. waaw. Mm-hmm, ah. kon nag euh, ca defarug mbokk itam. dafa dafa am solo trop. est-ce que est-ce que est-ce waaw. wala si ne tasaaloon bii wala borom moo ko waxal boppam. nag mbokk day lu am solo. ndax kenn ku ne judduloo sa bopp fa fa fa la neex kenn ku ne may noonu laaj foo foo foo ku la bëgg nga jur la xañ na nga tànn keneen ku sa waajur wax ne yàlla mooy seet ku ne ka ko neex mu judduloo la fa loolu dafa bokk ci dogalum suñu borom xudratullah li nga wax léegi sax li ciy gën a jotul kay maanaam ba aaya ja jeeg sax maanaam raqib bi sax mooy yëfi illa kaana alaykum raqiba sax mooy yëfi waaye ci raqib bi moom fa yëfi ah, ah, ah. jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf jërëjëf وخلل الإكرام والغفاخ خير خدمة خير العالمين سلبت هي الكرامات معا فانسلبت يقودني خود الكرام جيم ولي سوى نحو الدهر رضي عني الله والرسول وأهل بدر وأتاني سور فازت حياتي ببقاء الله وبالكتاب ورسول الله قلبي وديعة لربي واللسان مع الجوارح وبث بحسان يقودني بعصمة للجنة من سالني عن الأذى بجنة ربي يا أحمد على محمد عليه خير صلوات السمد ربي يا أحمد على محمد عليه خير صلوات السمد سيدنا بارا moo doni soxna mi tolo mu am ma ngaram yàlla mu sawa may turandoo baara bi jàllatoo wóor na sëriñ baara keroog ba Seex Bàmba ne tey ajjana ca dem du ñàkk tey moo ca dem mooy ndoy sëñ baara maa tamaam bu soo na dem mu ni ko toogal ma dem te nga wuuf Seex Fallu baara Bàmba yi koo foofa nag du toggi reer te mara la dal di wàccum liggéey na sëriñ baara keroog la bur yàlla naa na ma ubbil ajana ma teral waaj sëriñ baara bu yàlla dogal ñëpp bàyyi seen i ñëw kat li ma lay wax ne li soo bàyyiwoon ba gannaaw suba nga xam ne dara xew soo ñëw bunt kër grand place gars yi ah, ah. gars yi nag foo dafa am lu fa waaye nag ku leen yëg ñu yëg moom pour santam bii nun ñi ñëpp benn danoo def comme boppam boo fi toogee nag tey jëmmi Serigne Touba jëmmi Cheikh Abdou Lahad hmm. nga xam ne yaay kilifaam bi léppam dañ lay seeral nit kow dund ab géwél waaye nag nee naa ko fu mu taxaw man dañ la géwél ndax ñun Bamba ji yaar ak nekk hmm. muy ak yëg hmm. axum njot njot nag ñi ngi ko yaakaare sëñ Bamba yëgg ne fii ci adduna la li la may yow muy sëñ Moussa si Abdoulaat foo dem ci yoonu sëriñ Tuubaa fekk la fa hmm. taxawaay boobu dong la sa doom ji taxaw kon nag yàlla yàlla yàggal sa taxawaay moom mii nga ñaanal ko rek ba li ñu yéene liggéeyal maam Cheikh Amadou Lamine yéene ko liggéeyal sëriñ Abdou Aziz Bari mi suñu borom may ko kattan ak wér ak xéewal ñii mu àndal te jëmi sëriñ Tuubaa rek taxee suñu borom yàggal maa ngi jigul nag baax suñu ci di jéggu sëñ Moussa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 labdaar ya ak ñi fi woon kenn musu fee ñëw ba yor mbootum sëriñ baara ku du rasoolu te doo Cheikh Bamba doo ku mu jur no manti toll yoroo ndombay sëriñ baara xar baaqi Cheikh ak mbootam yu rëy yamu amu gisaatam ya ñee sëriñ baara mboolam wilaayat sëriñ Tuubaa lay asakaam la seex si seddoo na day baa nga ak sëriñ baara mboolam wilaayat sëriñ Tuubaa lay asakaam la seex si seddoo na day baa sëriñ baara moo doonu seex Bamba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 xolo jaay mbiram de baay ma kondu kafe du lakk fiit fo ñu jëm jaaja sëriñ baara mooy doomi soxna mi tolo mu am ma ngaram yàlla mu sawa may turandoo baara soxna mi daa gamoon Seex Bamba fekk ligal ba dabi jàlla too war na sëriñ baara keroog ba Seex Bamba ne tey ajjana ku ca dem du ñàkk tey moo ca dem mooy ndey sëñ baara maa doonam bu soo na dem mu ni ko toogal ma dem te nga wuuf see falu ak baara bambayi ko foofa nag di toggi reer te la dal di wàccu liggéey wóor na sëriñ baara keroog la bur yàlla naa ridwaanu nag ma ubbil ajana tey ma teral waajuru sëriñ baara ridwaan di ubbi buntu ajani bee kawafal boobee ba tey tëjuwul ngir xeetu Cheikh baara jigéeni ajana waajak seentakaayi wurus di soxna am toloom sëriñ baara maam soxna bu so des fii di seddale ngor diggante Seex Mustafa ak Fallu Baara loola waral loola waral ba Sëriñ Tuuba xawel wu Sëriñ Fallu Sëriñ Baara Seex Baara nag ba mu xamee ni xalifa la daal di wàccub liggéey jaaxal Baara Seex Baara nag ba mu xamee ni du doon xalifa la dàbbi jannatoo jaaxaan fa ma mbaara ñeent fukki at la fi am ak yu tafal soga dem jooy naa borom kàddu gi way man sëriñ mbaara ñeent fukki at la fi am ak yu tofal soga dem jooy naa borom kàddu gi way man sëriñ mbaara dem la fi lu dem am na filim am jur fi ñu baax ñi mu jur waaj na sëriñ baara sagal na maamam sëriñ maranta mbàkke ma woon fa neegi mbàkke kajoor jaajëf sëriñ baara sagal na maamam sëriñ maranta mbàkke ma woon fa neegi mbàkke kajoor jaajëf sëriñ baara gis naa fa mbàkke kajoor xéewal yu jëm abadan yoo xam ni dootu fa jóg lépp sëriñ baara loola waralaat mu jot doomam yu baax ya mu am ànd ak sëtam am màggal sëriñ baara ku di murit te dëggal foo man di jublu de bum tee nga fas wala rek waa kër sëriñ baara ku di murit te dëggal foo man di jublu dayaw bum tee nga fas wala rek waa kër sëriñ baara am na ci yàlla ngërëm yonen bi xëy ko garam Cheikh Bamba xëy na garam Sidi Lamin baara yàlla na bur yàlla fay Cheikh mbaara ngeen gi fayam te boole luy njabootu kër sëriñ baara yàlla la njool Mbàkke fay Seex Baara kay xaritam di àndandoom te di soppeem jaajëf Sëriñ Baara yàlla la Seex Bamba fay Amadu Lamin ci lu mu ni du njox fay nun muy sant Seex Baara Seex Moodu Baara malar ya jolli tabbe anas mu taawu guy mbind mooy taawub Sëriñ Baara Cheikh Modou Baara ma leeri jolli mu taawu guy mbind mooy taawub sëriñ baara xar baaxi njolloor la daa sarloo ba xëy taxar xarub loj lo daa wax ni sëriñ baara bam ne dagaj lalakat ju baax ja daal di taxaw ko fal mooy sëriñ Abdul Asis Baara am na ci yàlla ngërëm yoneen bi xëy ko gërëm seex bamba xëy na gërëm siidi lamin baara siyaare naa ko sëñ seex mati lay sang bii siyaare naa ko sëñ seex mati lay sang bii du la yàlla tàggal ndombay sëriñ baara muniti waa réew mi yéen jógeen fi aare sëriñ Seex Mati Lay Mbàkke mi moo doon Seex Baara moo yor xilaafa gi uufa kam yu baax yi moom duum njaboot gi di leen sàmmal sëriñ